people.

mom bi mu yoree pouvoir lat bi mu nekkee ci pouvoir nekk directeur u ONAS l'ONAS du moyes nekk ministre des sports xeex na lan la ko jural après nan la xeexee mandat de dépôt nan la xeexee non dama ne xeex na rek xam nga xeex ça dépend ku nekk ak sa stratégie voilà moo tax lu mu ko léeg-léeg mais moo ne xeexam lan la ko jural premier ministre ñu bëri dañ yaakaar ni xeex mooy génn di yàq déedéet ah si mën nga xeex ci idée non ñun waa Kër xeex ci idée waaw mais Nelson na te taalul lakkul mais ñun ci lool lañ ne ah. lool loolu bokk na ci loolu bokk na ci non mais xeexu Nelson Mandela na mais yéen seen xeex fesul si amaana ñi xeexal Lat Diop ah, ah, bërki démb bu Aliou Sall koy wax su dee vidéo bi disponible na non Aliou waru Aliou bu waxee loolu dafa wax juum na bi su disponible ngeen jox ñu ko pour man très sincèrement ça place en avant très sincèrement je pense que euh, ni ma ko xamee ni ma xamee Lat Diop ak ni ma ko pratiqué gëw ma mu luubal alal wallahi loolu laa gëm benn mhm. ñaareel bi nit ku nekk war nañ la mën a topp mais gisuma ban intérêt la ñu am un acteur politique bu ñu xam ne day dem élection législative euh, war a am impact positif pour son parti et sa coalition gisuma ñuy précipité wu di ko jàpp di ko dugal ci procédure loolu très sincèrement surtout que Lat voyagé na plusieurs fois ñëwaat te ku xam lat xam ne du koy daw donc pour man intérêt déclencher procédure judiciaire bobu c'est carrément politicien euh li may ñaan moy fofu mu nek mu jóge fa xeyna élection yi bu ñu passé enjeu politique amatul xeyna xel yi dina dellu si ñu tégaat yoon ci biir de toutes les façons yoon moom kenn mënu ko rek fi mu di dem di ñëw di gis seen euh je pense que quelque part vraiment c'est le facteur politique qui a joué et, et c'est c'est dommage et mënoon nañu. lan ngay facteur politique. non règlement de compte man man dama oh, waxuma sax règlement de compte man dama yaakaar ne. Mhm. Euh, gars yi xëy dañ ragalee nañ lat xel au plan politique. xëy na dëkk bu mel c'est sûr que lat pèse lourd et aujourd'hui avoir lat avoir Aliou Sall avoir d'autres c'est sûr que l'élection euh, yi doon na gën a tar ci

mom dafa gëm ni limu am limu wara am mom mokoy koy ñafeel boppam. non jëwriñ dégloo ma dooguma la dooguma la dooguma non ça Lat Diop bi ngay wax. le fait que ñu koy dugal non liste même poser posé la. pour mu leer Lat Diop bi ngay wax. Mm-hmm. dafa sol mbubu politique. Mm-hmm. politique dafa am nu muy doxé mm-hmm. politique ak diiné bokkuñu. yow li ngay wax waxi diiné la. <laughs> waxi ngëm-ngëm la politique ak diine bokkul. té politique ak diiné su bokkoon li nga fi gis fan yi dootoo ko fi doo ko fi gis. donc so solee kay mbubu politique da ngay xeex politiquement. ku la bëgg a jaay yëfu politique moom ba muy jaay politique di saaga président Macky Sall gendarme yi dañ koy gàddu que fu ñu ko jàppee yóbbu ko biir këram jaay na fi gendarme yi doole ñu gàddu ko indi ko wàccee ko biir këram mu dem tëddi sami municipal Bougane Gueye Dany barki dem lan la wax wax leen seen supérieur maa ngi jëm fële ñu ne taxañ taxane yóbbu ko garde à vue dem jugé ji ko. loolu laa la bëgg a wax moom dafa am lu mu jaayante ñu koy taxañ di ko yóbbu biir këram parce que ci politique la ko tegoon même su dee lu mu doon wax du dëgg gëmu ko mais teg na ko ci politique victimisé wu na ba dugg ci biir xolu doomu aadama yi mais Lat Diop na victimisé wu ba dugg ci xolu doomu aadama yi gis nga Tange li ngay wax xam naa ko bu baax a baax mhm. Ousmane Sonko mhm. ak Lat Diop mhm. duñu bokkuñu bokkuñu dara amul fenn foo leen mën a méngale ci ñoom ñaar yoonu Ousmane Sonko ci politique Lat Diop séexlu na ko yoonu Macky Ousmane Sonko parce que au moins démocratie doon na mhm. mais actuellement nii amatu fi. moo tax lii xew xam nga ci biir wax wax naa la la dafa nax sénégalais yi. d'accord bi mu sénégalais yi nag ba toog léegi nag toll mhm. réalité yi day ci dara parce que 12 ans. Mhm. lu ne nga wax ko yow lu ne wax nga ko lu ne wax nga ko hmm. yow encore ñu ñëwaat kii la ñu ñëwaat indi la hmm. jox la pouvoir nga toog hmm. yaa ngi de nga bëgg continuer tamit yow en même temps la ñu doon wax nga continuer di ko wax c'est-à-dire loolu mooy wan ni waa ji dafa foo waa ji amul xam-xam xam nga Sénégal critique du xam-xam te ñun critique lañ jàppee xam-xam sëñ Malick Bassine si dafa ni ñett yi boko ko ci kilifa. xamal ni matuko d'accord ñu ne ko lan mu ne lo xam wax ko. Mhm. luñ la wax nga wax ko. Mhm. lo am jagoo ko lo mer xulo ko. Mhm. mais léegi xolal yooyu yëpp ci Ousmane Sonko. boko xolal xoolee yooyu yëpp ko gis ci mom d'accord waaw mais ki ñuy wax ki ki le président Lat dama ni la. dafa tollu ci buntum. buntam la tollu ni buntam ci politique mu ngi door a ubbeeku. d'accord waaw parce que fe mu nek ne. dina fa genn inshallah ak loxo yu set wicc wicc te xoolal bantu du bant du xar du damm dara du xew. d' accord waaw sénégalais yëpp nag dinañ dem ba dinañ xam ni kii mooy kii kii kii mooy la Diop. d' accord ñu